Bulu chers jeunes tedeen yu kenn bëggul TV dal jàmm dal jàmm ci li gën a fës ci ëtt yi ñu commencé koog réew mi quotidien mu bi xët bu yaatu jagleel bi ni ñu xamal nag démb lépp leer na procès verbal bi nga xamante ne ni amoon na déjà ci taxawu Dakar moom la ñuy lii di firndeel ne Barthélémy Dias moom la mujjee dëggal candidature ci yeewi askan bi direct news ubbi xët bu yaatu jagleel coow la nekk ca biir yéenekaay lan moo tax ñu sonal leaderu gëm sa bopp bii di Bougane Gueye mii moo ci yoon bu baax bi lii moo tax mu bëgg koo sonal balaa élection di ñëw tëj rajoom beeg terrain bi ba du am fu mu waxee waaye leaderu gëm sa bopp lijjantiwu sax ndax jamono ji li indi coow li ñu war a tëjee teleem bi ak rajoom bii moom ci yoon la nekk ndaxte depuis 2013 mësul am beneen problème fiscalité lépp lu jëm ci fiscalité di ko respecté kon na nguur gi bëgguñ leen lu tudd rek faagaagal ko La Tribune yéen moom daf ci ubbi xët bu yaatu tey xamle de démb de ay gendarme yoo xamante ne nii dañoo armé ñoo fees dell des médias yéen bi di xamle na gis nga léegi nag leer na dossier des médias bii ñu ngi ko bëgg a accéléré bi tuddee ko

ne kenn mënu koo changé duñu ko annulé tey duñu ko annulé ëllëg Barthélémy Dias ak waa taxawu Dakar di ko dëggal ci biir yéen kaay bi tey xam ci yoon te booy xool ñoo samp taxawu Dakar ay maire fipp yoo ñu ngi ci PS taxawu Dakar kon nag duñu nangu ci biir yéen kaay bi ne ñoo ngi dëggal suñu candidature ci élection yi ñu jëm ci turu ci biir Yewwi Askan bi di nekk candidat officiel bu Yewwi aanee ne yëf yaa ngi bëgg a xajam de coow lii nekk ci diggante toll nii kenn ku ci nekk am nga ku lay dooleel xoolal Soham Wardini gars yi dañoo xam ne waaye ay leader yu mag ñoo nekk ci ginnaawam moom Cheikh Gueye la laajte taxawaayam bii nu mënee nekk ndaxte moom ca réunion bi nga xamante ni nii waa taxaw Dakar def nañ ko moom moo joxe woon ñaan ngir ñu commencé réunion bi kon nag moo tax mu daal génn ca réunion ba dem taxaw teem na ngir

candidature Barthélémy Dias la ñuy dëggal moom soo am war dina day mujjee toog xaar yéenekaay bi di xam la ca wet ga ne gis nga femme des leaders yu bokk ci bi tax na muy sàkku ci presse bii ñu di tey ci coow lii l'observateur ubbi bi yaatu tey laaj ci taxawu Dakar bii fan la moom moom moo wala tracé dëgg gi waaye ba tey ji kenn dégg ko mu wax lii di firndeel na am na position bu mu taxawee waaye tiit loon na yenn ci ay leaders yoo Barthélémy Dias ci biir yéenekaay bi di xamle ne gis nga man lijjantiwuma lu neex kenn taxaw Dakar tànn nañ ma ba noppi donc amatul beneen coow ku neex ku naqari may kandidaaw taxaw Dakar yéenekaay bi di xamle ne gis nga taxawaayu Barthélémy Dias bii dafa mel ne Khalifa Ababacar Sall d'accordu ci ndax tekk tekkaaralam gi jaaxal nañu bari ca wet ga yéenekaay bi di ñu xamle ne soxna Aïda Diallo mi nga xamante ne nii attaqué woon nañ ko ca biir këram moom mujjee bi def ci ay révélation yu rëy te dalal avocat bii di maître Khouraïssi Ba mi dëggal plainte bii ne a ngi yéen kaay bi di ñu xamal ne gis nga élection yi bëri nay risque yoo xamante ne nii mu ngi ci ndodd waa Yewwi askan bi Barthélémy Dias ci biir yéen kaay bi di xamle ne majorité wu taxawu Dakar da ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak Barthélémy Dias lii moo ko may doole ba bu ñu moytuwul soo am wàddi mi day mujjee perte xeex bi moo taxit commission d'investiture bi Yewwi askan bi ñoom it mujjee nañoo jël décision ne Barthélémy Dias mi candidature mbiram bii dañ koy confirmer yéenekaay bi di xam le ak lu ci mënti xew Yewwi Askan bi moom ñoo ci tànk tas ndaxte seen xuloo yi xeex yi moom dellusiwaat ci coow Ousmane mu ngi bëgg a mu fekkee artu gi may dund dund normal Adji Sarr di xam ne ci biir yéenekaay bi ne man soxlawuma xaalis dëgg gi ci boppam laa bëgg mu leer damaa sonn ci quartier yeeg menaces yi amul sax léegi benn quartier boo xamante ni mën naa fa yàgg bu ma dëkk ñaari fan ak ñett ma daal di déplacé dem feneen dëkk fa lii di fi ne ne sonn naa dee naa tàyyi naa ci sama dund gii Adji di xam ne wax dëgg fa yàlla man dama war a dund comme yeneen sénégalais yi ni ñuy dundee am seen jàmm li mu jéem maa sonal lool te <laughs> sunu gaal yàlla baax na du ma ci débat ba suwag jàmm incha allah Nous xam ana fan lañuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 502 15 63 76 378 17 ñi nga xamante ni am cas urgent bu mënuñoo xaar mën nañoo woote ci numéro bi di 77 030 48

alxames gaawu dibeer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha yi daal dina leen sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi